la xamal ni coupe bi man maa ko tegaloon commune Pékesse ci turu parti démocratique sénégalais ndax jeunes yi fi nekk dañoo bokk ci askan bi ñoom ñëpp ñu yittewoo lii di sport ma tegal leen coupe bi mu nekk benn genre communion dajaloo ambiance mu neex te ji yaakaar naa yëf neex na amul voiture euh, amul euh, chaise. waaw loolu nga wax loolu nga wax na sawar trop tontu ci parce que je pense bien que tey jii ku fi toog da nga yaakaar ni autorité moo ko programme moo ko def alors que on n'en est rien pour l'instant on est qu'un citoyen simple mais nag nekk. un membre comité directeur du PDS bëgg PDS bëgg askanu Pekes bëgg commune Pekes bëgg zone Pekes nga wax nag yaakaar naa il en est très bien conscient parce que comme loolu nga ko waxee stade bi ça fait des années ñu ngi nii parewul eggul wul loolu yaakaar naa autorité laa ci interpellé en commençant donc par le maire donc le sous-préfet qui sont donc ñoom ñu wax ci yaakaar naa question boobu ñoom ñoo ci gën a yellu pour mën ca tontu mais man du ci sax jéem a tontu. Ah, ndax njort nga ne maire bi yore dëkk bi. war na gën soo paree nga def micro trottoir nga laaj askan wi ñoom ils sont bien placés pour répondre à cette question là. Ah, ngeen candidat euh, mais bien sûr que oui loolu moom yaakaar naa mooy euh, géej am na ndox. notre candidat est Karim Meïssa Wade et incha allah le terrain incha allah. léegi ñooy euh, loolu ni ñu koy waajale moom. donc jiwe ca làmb ja jëm ci làmb ja bàkk jiwe ci bàkk moo gën lii nii c'est juste un point de départ mais may sensibiliser nit ñi di leen wax ñu ne ñun li nga xam ne moom la ñuy jooytu pour l'instant mooy amaguñu commission pour bindu mi mais li may lan ñëpp rek mooy su commission bi ñëwee yéen ñëpp na ngeen bindu képp ku ñu laaj bu foo mën a nekk partout dans le Sénégal nee leen commune Pekes laay wotee fekkee ni ba nga dëkk ngeen Taïba laay voté bu dee bu dee ñi ngeen nga dëkk ngeen ñi ngeen laay voté bu dee Pekes nga dëkk ngeen Pekes laay voté pour l'instant fi ñu toll mooy ñoom li ñu wax ñu ni commission 500 commission dañ ko jox incha allah pour ñi bindu maa ngi appel maa ngi def appel à tous les militants du PDS bu leen kenn njëkk ci mbindu mi lu mu guddi guddi lu mu naaj naaj lu mu naqe naqe na ngeen di bindu ji téye seen carte ndax loolu mooy arme bi xam ni lu ñu bëgg ëllëg moo ñu ko may incha allah. waaw non loolu loolu loolu loolu c'est un travail interne voilà du ma ko divulguer ci biir mais ñu ngi ci liggéey baax a baax. tey jii nii le coordonnateur départemental Maodo Gueye était là donc je pense bien que ñun on s'entend très bien ñoo ngi waxtaan suba ngoon te loolu duñ ci mës a réeroo incha allah non non non non du ci mës a am loolu laa la wax ñun ñun ñun xam nga ñun dañoo am discipline de parti yaa ma dégg nous ne sommes pas un parti qui est né à peine huit ans qui n'est même pas encore structuré nous avons un parti très bien structuré comme à la tête Abdoulaye Wade notre candidat Karim Meïssa Wade là donc euh, vraiment toll na foofu quoi. nga PDS su mu nekk euh, doole bi wàññeeku na ndax doo leen dem APR wala. waaw loolu loolu loolu loolu loolu Gustave soo moon dem yaa ngi loolu wax journaliste la rek ak constat rek boo def yaa ngi may dégg mais ce qui est sûr et certain mooy on la là li ci kanam rooti bët foofu laa leen tontu bu sab yàlla PDS mësul wàññeeku ñi Abdoulaye Wade ñi ko bëgg seen xol ñi ngi fi ba tey jii sànq góor daa wax na ko yaakaar naa tey jii nii géewal yi jooy nañ ko yow mi yëngu ko sabab ak ñeen ak kon boog Karim PDS dafa def gi loolu jéem a wax mais gis nga lii mais gis nga tey li xew fii lépp kan moo ko def dooni maire la dooni DG la dooni keneen la c'est un membre comité du PDS parti dans l'opposition qui fait cela. am na ñoo xam ne danañu wuyu Macky Sall PDS ñeen euh, wuyu di Macky Sall bi lan ngeen si jublu non non non non loolu bu ko wax opposition bi dañoo waxtaan maa ngi ko wattu Sénégal loolu kuréel boobu nekkul kuréel boo xam ne c'est pour aller à l'élection c'est un kuréel boo xam ne pour wattu la li nga xam ne Sénégal yi moo ko moom bi ñu waxtaan ba pare ñoom ñoo délégué huit personnes ñu dem kon ñoo ñu dem demal na ñu demul loolu Gustave bu ma dugal mais xam nga baax na ñu dem ñëpp lañ demal ils ont parlé au nom du cadre de euh, maa ngi ko wattu Sénégal waaw de toute façon ku mën a dem ku mën dem ñu dem ñu demul wattu lañ demal gàkku xam nga ni bon je sais pas que mi ngi ñi dem ñi demul lan demal parce que ñëpp mënuñoo bokk dem mais huit personnes ñun tànn ñii ñëw nii Abdoulaye lañ fi ñëwoon est ce que tout le parce que ceux qui sont là donc Abdoulaye Wade moo leen yónni coordonnateur Omar Sall moo leen yónni Aïdara Sele moo leen yónni donc ils sont là mais pourtant ñëpp ñëw ñu. waaw man man dama wax ma da wax mu leer. kooku mooy kan laa la laaj. mais monsieur le maire de Pékesse ki ñuy àndal. monsieur le maire de kon nañu parti ah, a jàkkaarloo ñoom ndax pare ngeen ndax ñeme ngeen. bu saaf li nga gis bu la doyul xaw ma leneen looy doy. allez nuy lii c' est un témoin oculaire à vous de tout ce que lii ku mu doyul leneen loo doy. pare nañu ne sas leen déglu duñ pare mu fekk émission jëngoon demul bu jëngoon nañu incha allah. waaw loolu ñun dañ koo commencé avant ñu koy nekk ndax yàlla dafa def ñu bokkal ak jeunesse génération ak ñoom di bokk ñoom di dugg seen biir parce que gouvernance lo euh, approche locale yi def dañu ne jege xam leen xam ni moo leen soxla ñu ne ci avant ñu nekk dara te bu yàlla dogal loolu ñu nekk ko ñoom dañ xam lu mu defoon dañ ko yóbbee parti incha allah. lan ngeen defal bi. xam nga tout à l'heure wax nga ko star bu yëg du mi ngi dañu laaj jeunesse bi ci mbirum euh, dan ni ci mbirum jeunesse bi ñoom lan lañ fi defal lan commune bi manqué na ko bëree bëri bëri commune baa ngi nii mën ngeen laaj li ñu manqué bëri na. la jeunesse est là. la jeunesse est là en tant que. la jeunesse est là ñoom seen bopp sànq trois la nee naa la boo defee micro trottoir ñoom dañ la wax ñoom leen métti mais tey jii nii lii koo fekk te maire defu ko. manifestation def ko da nga ko def ko wax xam nga kuy laaj suffrage kuy laaj nga ne man boole ma wotee dinaa def lii ak lii ak lii ak lii boobu dafa fekk yow nag nga xam lan si biir dëkk bi ndax ndox am na ndax courant am na ndax tali am a ndax stade bu baax na wala baaxul loolu yow yaa ko jàpp. d'accord xam nga soo ma dëkk tey yaa ngi may dégg da daj loo xam da xam ne dëkk bi benn li fi ki moy benn stade bu baax amu fi de un service yoo école lycée bu baax bu mat am ay classe bi fi am euh, li mu manqué bari na CM bu baax amu fi sem bi ak lycée bi c'est mixte école yi seen bopp commune bi y a 19 écoles élémentaires donc ça veut dire que loolu c'est vraiment euh, tuuti na trop trop ci commune Pekesse qui compte plus de 30 000 âmes donc yooyu yëpp recensé nañ ko xam nañ ko électricité manqué na fi trop boo xoolee dëkk yi ko am fii bariwul courant bi tëjee dafa yëlloo coupé toute la journée ak yeneen ak yeneen donc yooyu recensé nañ ko xam nañ ko mais petit à petit ñoo ngi ciy ñëw incha ko incha allah rek bi loolu dañ ko commencé saafara ba pare te nekkagul ko tey boo ñëwee fi ñu dëkk da ngay gis yoo xam ne yooyu ma la wax noonu yëpp am na ñu ci saafara parce que vous me connaissez très bien Voilà, donc il faut demander. Il y a 47 villages qui sont en solaire, alors que la commune compte 112 villages. Donc la on en est déjà. tiitu lu ci quoi ndax xam na solution bi te mu yàlla doole incha allah bi li ñu bëgg ñu ko donc euh, ce sera donc vraiment une lettre comme la force voilà.